or oh, Samuel Eto'o il paraît que club am daf ko suspendre. <laughs> Samuel Eto'o moom mi nga xamante ni nekk na footballkat bu mag ah, bu ñuy ràññeeku lool fii ci Afrique eh, dafa nekk fële ci Turquie benn club bu ñu tudd Andala Sport. Mhm. mais eh, def benn déclaration bu xaw a bu ñu jàppee ne dafa doy waar lool ci réseaux sociaux surtout ci compte Instagram am. Mhm. moom dafa li mu ko daal di wax mooy peut-être peut-être certaines personnes ne me respectent pas. Mhm. car je suis noir loolu nag eh, neexul lool lool président club bi tudd Ali Safar moom mi nga xamante ni dafa jàpp ni c'est des propos racistes Samuel Eto'o ñu daal di ko suspendre euh, de manière indéterminée maanaam xamuñu kañ la koy baal il faut club bi toog waxtaanaan Samuel Eto'o noonu xam nañ ni lool lool moom làmmiñam denc ko ci poche yi boobu mu bindoon euh, expliqué jafe-jafe yi mu dund moo tax mu muy muy faral di actuellement di exposer yenn yenn déclaration surtout sur les réseaux sociaux mu nekk koo xamante ni tamit ki ku connecté la toujours sur les réseaux sociaux yenn déclaration yi actuellement am solo waaye tamit bi mu génnee surtout ci plateau télé télé yi nga xamante ni mi ngi koy def euh, en Europe. Mhm. à chaque fois day def ay déclaration yu poignant yoo xamante ni day taxaw di expliquer li mu dund en tant que nit ku ñuul surtout bu mu nekkee ci yenn niveau yi nga xam ni bokk na ci footballeur yi gën a ràññee ci monde bi. voilà mu ngoog donc loolu am na solo dans quelques minutes nañ recevoir euh, koo xamee ni day ñëw pour ñu waxtaan ci wàllu euh, taekwondo di